waaw mais balaa may commencé bugg bugg naa préciser ñaari affaire bismillah bismillah boo bi ci njëkk mooy Sénégal hmm. il faut ñu génn ci esprit compétition hmm. gis nga démb bu ma envoyé annonce bi di ma jot ci ay message hmm. mel ni mel ni Ama Balde Modou ñoo war a bëri <laughs> mel ni mel ni ñi am mel ni Mimi Touré Sonko sama doom bi mu ne ma mel mel ni Dip ak ak ak ak Ngaaka Blindé <laughs> ndeysaan ndeysaan vraiment ndeke vraiment loolu lépp loolu lépp amu ci. Mhm. loolu mooy un deuxièmement. Mhm. ma bëggoon la dama la bëggoon féliciter. jërëjëf imam ñu ngi lay ndokkeel yow itam. est-ce que yéen koy dégg bu baax mbokk yi baal leen ma ci commentaire bi s'il vous plaît. imam continue. ma bëggoon la féliciter eh, ndax benn mhm. affaire. jërëjëf xam nga man damaa def sama vidéo ma envoyé. boobu yàlla def na xamante wuñu woon mm-hmm. yow yaa dem ci samay contact mm-hmm. nga jël sama numéro nga wooma absolument xam nga loolu xam nga lu mu tekki mm-hmm. mooy mooy yow tu as du cran tu as du ak loolu premier caractère borom xam-xam mooy deuxièmement danga dangaa bëgg xam-xam troisièmement aussi dangaa woyof ndax ci ci lii ci ci Facebook bi yow yaa am ëpp donc yow man maa si si si si si si si yow man maa waroon man maa waroon ut bokk sa live nga bañ vraiment loolu loolu loolu il faut ma préciser ko bu fekkee am naa ay supporters ñoom ñu xam ne lii bu dee match la yow gañee nga ba pare. déedéet sama supporter bu fekkee comme ñoom noonu lañ ko bëgg jëlee nañu xam ne bu dee match la. يو يو يو ان شاء الله غاديغا با فري واي كات عرب بي موني فلو كنت فلو كنت بعد من لا او صفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهي جل البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدمين الفضل لك يا شيخنا ابدا ابدا ليغ نك داماي اتاكي ديريكتومون سما كيسيون بسم الله خمغا ليغي بخاري بيم في جوغي اك تاي نيغي تي 12 سيكل ولا 13 سيكل Mmh. léegi ñun li ñu man li ma mënul comprendre mooy coowu Buxaar yi lu ko indiwaat puisque léegi mmh. man dama jàppoon ne mmh. dama jàppoon ne critique yi ñu war a critiquer yëpp téere Buxaari bi liñ ci liñ ci war a wax yëpp wax nañ ko ci luñ ci wax rek waxaat la léegi lu jékki-jékki rek lu tax ñu jékki-jékki rek wara a encore indiwaat nag coow encore autour de Buxaari vraiment loolu bëgg naa ko comprendre Mhm. loolu bu fekkee baax na loolu mooy suñu première laaj. ah bismillah continuez continuez boo paree ma mën a ñëw. bon loolu loolu loolu loolu loolu loolu sama laaj deuxièmement. Mhm. deuxièmement ñun amuñu problème ak critique Bukhari. Mhm. puisque Bukhari dañ kaa mos a critiquer. yow yaa ngi dégg Suyuti naan wantaqadu alayhima yasira fa kam tara naxwahuma nasira Mm-hmm. Buxaari bu mu bindee téere bi ba pare moom Buxaari présenté na ko ay sëriñam ah présenté na mm-hmm. ko Imam Ahmad présenté na ko Yahya ibn Mu'in présenté ko yeneen sëriñ ñoom ñëpp ñu ànd ak moom ni xad téere bi wër na ba mu des ñeenti xadis ñoom Daaru Qutni ak uh, al alxasani aljani ak Abu Zar al harwi ak abi Mas'ud ak Dimaski ñooñu def nañ intiqaat ci téere bi génne ci mm-hmm. ñaar téeméer ak lu topp xadis ñu intixaat ko ñun loolu wu wuñu ah donc ñun amul ah ah deux cent ah? Mm-hmm. Ah, dix deux cent deux cent dix xadis précisément précisément te ñun imam Shaafi yi nee na imam Shaafi mu ne aballahu an yutimma illa kitaaba nee na yàlla bañ na lank na ne à part téere bi benn téere motul donc ñun amuñu problème réellement ñu problème réellement critique Buxaari amuñu ci problème réellement mais légui xam nga lan mooy su lan mooy suñu problème moy critique bi lan moko créer ak ki koy critiquer lu mu ci namm c'est-à-dire légui ñun loolu la ñuy ragal c'est-à-dire légui critique bi ki ko critiquer lu tax mu créer waat polémique bi ak mom polémique bi lan mo ci deuxième question la wala loolu de waaw bon presque la même question légui mom polémique bi lan la ci nam parce que ñun mom critiquer bu xaar yi loolu gêné wuñu donc kii ki ki koy critiquer lan la ci nam

ñun ñëpp ñu mën cee jëriñu waaye comme ni ma ko waxee ci introduction bi xaw ma ndax boobu yaa ngi fi wala duggagoo woon mooy euh, dañuy waxtaan parce que damaa gis sa benn vidéo boo xamante ne nii am na loo xamante ne wax nga ko ci ma d'accord ci ak à 100 pour am na loo xamante ne wax nga ko ci xëy na mën naa ci am ay laaj am na loo xamante ne wax nga ko ci am xëy na mën naa ci am taaqib euh, mm-hmm. waaye ñëw ñu pour waxtaan pour que man damay défendre position ki nga doon tontu muy Ahmed Khalifa. loin de là Ahmed Khalifa man son parfois mu wax lo xamante ne ma ci d'accord te yàgg naa ko def fi ci live bi ñu fi nek mën nañ koo donc je suis pas à la place de quelqu'un bo xamante damay défendre qui critiquer Bukhari pour mën wax pourquoi ñuy critiquer Bukhari wala pourquoi waruñ critiquer Bukhari man en tant que personne amna yo yoo d'accord naa ci Bukhari amna yo yoo d'accord ma ci manam amna ay xadisu Bukhari yo xam d'accord ma ak mom jappuma seen ak wér amna ay xadisu Bukhari yo xam jappuna seen ak wér gëm naa ko maa ngi ci maa ngi ci kii donc suñu waxtaan bi man ak yow la euh, waaye nag pour tontu question général bi nga posé nga xam ne man mi sax mënoon naa kaa posé xëy na te laaj la ko bu ma paree yow tamit dinaa dama lay delloo laaj bi mooy pour pourquoi ñuy wax ci Buxaari ci moment bii wala jamono ju nekk ñuy wax ci Buxaari alors que suñu diggante ak moom nangamu siècle dox na ci euh, quatorze siècle wala treize siècle wala douze siècle ci li jàpp mooy alxuraan pourtant quatorze siècle dox na suñu diggante moom te ba léegi ñu ngi ciy wax tawraat ak linjil l'injil précisément vingt siècle dox na suñu diggante moom te ba léegi ñu ngi ciy wax donc bépp mbir moo xamante ne dafa am solo muy jëf bu doomi aadama jëf wala jëf bu yàlla wàccee jaarale ko ci doomi aadama surtout nag bu fekkee lu yàlla defal barke la mbir moomu noonu alaama mari usuri wala azmina dañuy dañuy continuer di ci wax ñiy wax ñi wax lu baax dañuy continuer di ko ci wax ñi ciy am ay taxaw seetlu dañuy continuer di ci am taxaw seetlu léeg-léeg sax ci ñiy am weddi ak taxaw seetlu noonu ci la yàlla di jaaree ci seen ak weddi googu gëmloo ñeneen yàgg ngaa dégg wala yàgg nañoo dégg ñëpp ku taxaw di weddi alxuraan ba bés ñëw yàlla jubal xolam mu gëm alxuraan donc bu ñu waxoon ne alxuraan wàcc na depuis quatorze siècle kon pourquoi ñuy critiquer alxuraan pourquoi ñuy bàyyi nit ñi di critiquer alxuraan naan am na ay ndàngam am na ay nàngam konoon daanaka ñi xam alxuraan dëgg duñ mën a jug pour génnee ngëneel li nekk ci alxuraan ba yéeféer bi mën a gëm alxuraan naka noonu tamit saxiixul Buxaari ci même balance bi lañ koy teg dañuy continuer di ci wax boroom xam-xam yi taalibe yi ñi xam ak ñi jàng nasaraan ak ñi jàng ki képp ku nekk ci fànn bu mu nekkee sagam Buxaari moo bind yaakaar naa boroom xam-xam yi dañuy wax ne man allafa faqad istahdafa maa kutiba qara wa maa xufisa fara képp ku dem ba bind rek mooy lancé nga défi wala lancé nga objectif boo xamante ne nit ñi danañ ko jéem a rëj-rëjloo pour joti ko lépp luñ bind dafay des lu ñu mokkal mën nañ koo fàtte sagam Buxaari moo bind nag bàyyil àdduna il faut que ñu am ñu koy challenge il faut mu am ñu koy défendre ko loolu yaakaar naa du yem ci suñ jamono ji rek waaye fii ba yàlla di wal bufta bi tant que saxewul Buxaari mu ngi des di saxewul Buxaari l'islam di des di kaw suuf ñi danañ ko ne di wax ci saxewul Buxaari loolu ci première question bi xam naa bëgg naa yow tamit am ci sa réponse pour man tamit cee jëlee yokkute waaye nag est-ce que pour autant dafa war a tax ñu ne réew sàngam waruñ faa critiquer Bukhari wala communauté sàngam waruñoo critiquer Bukhari bu fekkee loolu la kon am na communauté yu mën a am droit ñoom tamit ne communauté sàngam kenn waru faa défendre Bukhari wala communauté sàngam kenn waru faa propagandal Bukhari mais jàpp naa ne sagam waxtaanu xam-xam la comme yow ni nga koy defee nañu bàyyi mbir mi mu nekk balance xam-xam toujours ñuy waxtaan di sottante xalaat parce que du lu figé ci benn jamono du lu figé ci benn génération

nit ñi imaam dañoo bëri ay façon am na koo xamante ne dafa am xol bu la danay weddi dara mais weddiwul ngir bañ ko dafay weddi pour bëgg ñu leeralal ko buko ko xamee gën koo bëgg am na koo xam ne nag dafay weddi ngir dafa bañ mbir moom loolu kooku wala euh, wala inatayta lazina utul kitaaba bi kulli ayatin ma tabiu qiblata comme ni ko alquran waxee boo indiloon bépp dalil ci àdduna bi du tax ñi gëm la mukk parce que weddi nañ sax yonentu bi am na koo xam ne nag day ñëw laaj yonentu bi ne ko yow danga ne yonentu yàlla nga mu nen waaw mu critiqué ko posé ko ay question de challenge yonentu bi tontu ko relevé défi bi mu gëm yonentu bi ne ashhadu an laa ilaaha illallah wa am na koo xam ne nag laaj na yonentu bi mu'jiza yonentu bi def mu'jiza ci kanamam sax mu continuer di ko weddi kon kii critiqué Buxaari ci jamono jii mën nañ koo xaaj ci ñaari fànn yooyu am na benn ma masamba wala benn mademb boo xam ne moom dafay a màbbal l'islam kooku loo ko mënti wax ko gëm amna ko xamne nak da fay critiquer bukhari parce que dafa am ay shubuhat yu nek ci xelam mi asa wala àlla am ku ko koy meuna dindil mu continuer delu ci lam nekkon démb ci gàttal li la amone comme réponse ci sa ñaari question je sais pas si j'ai bien répondu waama jazaakum la xayran yàlla yàlla fay legui léegi dafa am ñaar nit ñu wala bëgg laaj xam nga frère Rachid frère Rachid xam nga ko alax Rachid waaw xam na ko frère Rachid al axrachid waaw xam naa ko xam naa xam nga xam nga xam nga professeur Adnan Adnan Ibrahim xam naa ko léegi nag ñun loolu moo ñu inquiété xam nga xam nga olof day wax balaa ngay gémmiñu sàmm nga xam lu mu wëlis dëgg la ñun nag dañoo nekk ci position dootuñu xaar sàmb wëlis puisque hmm. léegi le frère Rachid xam nga c'est un Marocain bu bu nekkoon jullit tubbi dawe Maroc dem installé Chypre mhm. le frère Adnan c'est un palestinien bu dawee Palestine dem installé université de Vienne di fa jàngale léegi nag mhm. ñun ñoom bu ñu amee yenn wax léegi képp keneen ñu léegi ñun mënuñu mënuñu nangu benn jullit di def di di am le di wax la même am le même discours que xam nga yéen xam nga léegi ñu bëri dañuy critiquer ñu bëri léegi ñun loolu moo ñu étonné Moi, les mêmes hadiths que que ñi critiquer c'est les mêmes hadiths que Adnan et frère Rachid di critiquer ba frère Adnan et frère Rachid dans leur critique ils disent toujours Abu Huraira c'est un personnage fictif qui n'a jamais existé deuxièmement ils disent que le Coran lui-même maintenant ils vont pas s'arrêter au hadith ils disent que le Coran lui-même Banu Abbas puisque les loolu le titre, moi, ñi wax ñii di critiquer ñëpp dañuy naan banu abbas ñoom ñoo commandé Bukhari ak ñoom muslim ak ñoo ñu defara leen ay hadith léegi les mêmes gens ils disent que même le Coran yonent saa defaru ko banu abbas moo ko defar ba pare ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam existé wul en tant que ñun ni ko jàngee suñu taarix la prophète sallallahu alayhi wa benn waale bu juddoo Gaza Palestine doon def ay discours waa banu abbas récupérer discours bi <coughs> récupérer bi créer le personnage du, prophète ce qui fait que nous, maintenant, on ne peut pas, pas attendre que quelqu'un au fond de sa pensée. Maintenant, nous, légui, Koulal Bukhari, on se dit que Bukhari, c'est la sentinelle. Légui, Bukhari, dans notre tête, Koulal Bukhari, après, Abu Huraira, après, Banu Abbas, après, Al-Quran, après, dans sallallahu alayhi wa sallam. titre. nous comme léegi yéen yéen vous bu ça ne nous dérangerait pas dites ce que vous voulez mais nous, dans notre notre entendement puisque nous avons lii pour que la nous ne wax bi ku ko tu nañ arrêté est-ce que est-ce que position la voilà. Seydi Imam maa ngi jéggalu bu baax tey tuub di rafetlu question bi ak euh, pertinence bi mu àndal waaye benn affaire bu ma bëggoon a ñaan rek ngir yàlla mooy boo ne yéen maanaam dafa mel ni kon man dama bokk ci ñooñu nga xamante ne danga leen a classé ci ñi nga xamante ne dañuy jël ay discours ay frère al axrachi di ko indi wala wax naa ko léegi tooguma en tant que kuy ñëw sax pour défendre Ahmed Khalifa sax ka kuy ñëw pour défendre euh, al axrachi wala kuy défendre Adnan Ibrahim Euh, bon anyway waaye daal ci gàttal yaakaar naa comprendre nga li ma bëgg wax léegi ñaareel bi mooy ndax par exemple tey jii ki nekk Dakar ak ki nekk Kaolack ak ki nekk Saint-Louis nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn fuseau horaire ki nekk dakaar bu waxee ne midi moo jot kon ki nekk Saint-Louis waru kaa wax parce que bu ko waxee rek dafa roy kële alors que ñoom ñëpp ñoo bokk benn montre bu baax li ma bëgg a wax mooy bu fekkee Adnan Ibrahim ولا الاخ رشيد ولا ديو سانغام ولا ديو سانغام ولا صح كي رشيد ايلال ميغا خامتيني موم مو بيد صحيح البخاري نهايه الاسطوره ولا كوميلني الامام الدار قطني ولا نيوم ابو الحسن الجياني ولا ابن عبد البر ولا نيوم الجصاص نيوم نيب بو فكي امنا بن حديث بو نيو جام كي بخاري بار اكزامبل تيري بوبو بيند نانكو لو اوب نيار تيميرات ولا جومي تيميرات سي غيناو كون جينيراسيون يي نيو سي غيناو ييب نيو يم سي تيكست بوبو كوكو لير لي تيكست بي واخ رك نغا مانا واخ dama lay jox ben exemple bu fekke yaa ngi amee téere bu tuddu al istiab fi maarifati al ashab wala fi asma' al ashab bu al hafiz ibn abd al bar bal ma nga delu ci téré bobu ci tarjama wu euh ci ci page ci volume 3 ci page 1116 amna wax ju bari jum fa wax mais dama koy gàttal parce que xeyna wax ji dafa xawa am xasaasiya mais dama bëgg tromp sa question mo tax ma joxe exemple bi ibnu abdul bari mu ngi tejje wax ji ne wa annahu la yasihu ma'nahu wa in kana isnaduhu sahihan ben hadith la doon wax fofu bim ñewé ba ci jeexintal nak mu ne kon liñ mëna jàpp moy hadith bi maana mënta wér donte isnad bi wér na légui kenn bu ñewé ci ginnaw ibnu abdul bari ibnu abdul bari di fatali na mu ngi dund ci 5e siècle l'islam bu ñëwé lire loolu ñëw bëgg wax ci hadith bobu nonu rapporter même version yu Ibn Abdel Bari bi kenen ku nekk Nigéria ñu rapporter même version bi kenen ku nekk Saint-Louis ñu wax la même chose est-ce que dafa tektale ne dañoo jëm jëli benn discours conspirationniste benn discours complotiste ñëw indi ko pour yàq l'islam je crois que non borom xam-xam yi dañuy wax ne unzur li zaatil qawli la lil qaili fal xaqu maqbul walaw min jahili nit ki buy wax bul xool kii wax mooy kan xoolal li muy wax nga xool argumentaire am bu dee argumentaire am am nga loo ciy daj ak loo ci mën a tontu nga tontu ko bu dee amoo loo ciy daj ak loo ci mën a tontu nga xam ne kon li mu wax moom moo ëpp doole li nga wax yow nga dem uti yeneen argument moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci boppam ci alquran yàlla daf ko ne waxal yéeféer yi ne leen wa inna aw iyaakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ñun wala yéen am na ku ci nekk ci dëgg am na ku ci nekk ci réer ñëw leen ñu waxtaan waxut leen na rek yéen yéen a nekk ci réer ñu ñoo nekk ci dëgg allez on se barricade on construit un mur mur de Berlin suñu diggante wa inna aw iyaakum la ala hudan aw fi dalalin mubin kon même yéeféer bii dund tey wala ki nara dund ci siècle yi di ñëw parce que tant que àdduna mu ngi nekk àdduna jullit dafay am yéeféer dafay am il faut mu am kuy wax dëgg am kuy wax neen léegi nag ndax discours bi ñu war a fournir ñun wala yéen suñuy oustaz discours bi ngeen ñu war a jox mooy du ñu defal di ñu defal ay garde fou di ñu takkal ay œilleur naan bu leen déglu nangam bu leen wax nangam wala da ngeen ñoo war a jox ay argument yoo xamante ne moom la ñuy forger woo ba bu ñu dajee ak yéeféer bi wax waxu yéeféer ñu xam naka lañ koy tontoo je crois que man tey waxuma la Ferrer Rachid waaye ki formé Ferrer Rachid sax wala ñi ko gën a yées mën naa nekk ak ñoom waxtaan ak ñoom te duñ yàq dara ci sama pas-pas ci diine parce que alhamdulilah yéenay samay oustaz ak li fi ma samay waajur jaarale jox nañ ma argument yu ma mën a défendre sama pas-pas mais bu fekkoon dañ ma bàyyi noonu rek takkal ma ay œillères ne ma bul déglu nangam bul xool nangam protéger nangam lii ñuy wax baaxul bés mën naa ñëw avec le monde qui est devenu un village planétaire nga xam ne da ngay tëj sa néeg tëj sa kër ci sa téléphone fekk la ba fa nga nekk YouTube dégg lu nekk Google fu nekk léeg-léeg ngay slide ci Facebook rek dajeeg benn vidéo euh, euh, kii mu wax la loo xamante ne mën naa jaxasal mën naa jaxase sa pas-pas d'où la nécessité

ku la waxaat ne malaan bi bokkaale la nga xam nooy layalee sa pas-pas boobu noonu awuzu billahi min kalimati ana waaye loolu dama ko indi rek pour wax ne réponse bi ñu war a apporter du di wax peuple sénégalais bi ne leen diw sangam discours Ferrero Rocher la yor wala diw sàngam discours euh, Joe Biden la yor wala discours Vladimir Poutine la yor dañ leen a war a jox ay argument yu ñuy comprendre ba pare mën a ci bascule lan mooy discours bu baax beeg lan mooy discours bu moyen baax bi شيخ تجاني radiallahu الله عنه la ñu defal اذا سمعتم عني cheyan fazinuhu بميزان الشرع فما وافق waafaqa وما خالف ma باي fatruku رضي الله radiallahu anhu اذن اذن ليس izan التجاني ولا taalibi التجاني عذر في عدم التعلم او في الجهل لأن الوزن بميزان الشريعة من عمل العلماء وليس من عمل الجهال ci waxu cheikhou tidiane bi ci lañuy comprendre ni kon talib cheikhou tidiane amul excuse ci ñaka jàng wala ci ñaka xam parce que tek ci bascule sharia jëfu borom xam-xam la mooy ne kon yéen ñëpp dem leen ngeen jàngi donc ñun imaam dañu soxla woon ci yéen suñuy borom xam-xam ngeen jox ñu argument yuy dajj wax ñoom Adnan Ibrahim yooyu ak yuy dajji wax ñoom al axrachid yooyu plutôt que que di ñu wax ne dañoo am même discours que ñoom di lekk nag maa ngi répété waat man génnee naa sama bopp ci euh, généraliser boobu nga def bi ci topp mooy te ma daaneel foofu joxaat la kàddu gi wax ne affaire bi dafa mel ni benn échelle boo toppee hadis yi dañuy dal Abu Hurayra boo jugee ci Abu Hurayra dañuy dal Bukhari boo jugee ci Bukhari dañuy dem Banul Abbas dañuy dal alxuraan bon je crois que lii argument bu xaw a kii la ci man parce que Abu Hurayra te booy topp du ne Adnan Ibrahim wala al Axrashi moom moo njëkk a wax ci moom am na ay boroom xam-xam yu bind ay téere sax ci moom yaakaar naa xam nga téere boobu tudd Cheikhul Mudira Abu Hurayra ak boroom xam-xamu tarjama yi boo koy topp ñi sikk sàkk ci existence Abu Hurayra depuis ci jamono borom xam-xamu tarjuma yi la te bokku na ci seen argumentaire yi ñuy sikk sàkkaa sax moy nit ku siiw ku mel ni moom mënuñ ko amal benn tour bu fixe amna lu upp 43 tur yuñ ko utal ñi gattal ba gattal ne 20 et quelques tour ci nit ku siiw ku mel ni moom ñi ne abdourahman ibn saxr la tuddu ñi ne diw sangam la tuddu ñi ne diw sa ak ni mu siiwee ak xadisam yi ni mu bëree wuté ci turam bi nonu déjà c'est un problème ak yeneen argument yoo xamante ne joxe nañ ko ci loolu waaye loolu man duur sama pas-pas man damaa jàpp ne Abu Hurayra ku existé woon la di lekk jàpp naa ne exagéré nañu ci ay xadisam loolu nag mën naa koo layal sama pas-pas la waaye jàpp naa ne nit ku la am na ay xadis yu mu ci yonent bi ñaareel bi wax ne banul abbas ñoom ñoo créé alxuraan wala nangam loolu tamit xam-xam moo koy lay parce que banul abbas xam nañ leen xam nañ fu ñu commencé xam nañ fu ñu jeexee fi seen nguur gi daanoo seen borom xam-xam ya nekkoon seen jamono itam xam nañ leen kenn ku nekk xam nañ rôle bu mu joué donc man bu ma amee lenn lu ma gëm ci jamono banul abbas mooy ne influencé nañ lu baree bari ci fiqul islam ak kitaabatul hadis comme banu umayata comme ñoom te comme ni nga xamee nguur gu nekk rek suñu jamono ji sax président bu toog ak pouvoir bu toog dafay influencer constitution bi ak loi yi ñuy teg selon ses kii dañ koy taay sur mesure waaye nag alquran moom am nañ téeméeri junney argument ak ñaari millions yu topp yoo xamante ne mooy wane ne banul abbas amuñu ci loxo banu umayat amuñu ci loxo ci yàlla la jugee jox ko yonentu bi yàlla sàmmal ko boppam ba mu yegsi ci ñun yàlla sàmmal ko boppam ba mu yegsi ci ñun waaye loolu nag képp kuy weddi lool wala kuy bëgg a saxal loolu kooku ngay débattre laaj loolu maa ngi jéggalu ci guddal bi di la joxaat kàddu gi Seydi. jazakumullah xayran eh, Cheikh Baye. cheikh bi keroog aj keroog ajuma passé dafa am fu ma demoon benn ngénte ma ñëw bi may nuyoo ma fekk fekk ñuy waxtaane football dafa xaram wala dafa dagan ma ñëw ma ñëw nuyoo guma ma ne leen seen waxtaan bi xaw ma lu ngeen ci namm mais bu fekkee kaaw gànn géej bi moo tax ngeen koy waxtaane noppi leen ko ba ñu supporté ko ba pare gis nga gis nga wax bu nekk dafa am jamono. Mm-hmm. gis nga gis nga gis nga xuloo biir kër. Hmm? bu dee waa kër gi mm-hmm. ñooy xuloo doomu ndey yi ñooy xuloo ku nekk mm-hmm. dugal sa néeg yaay mais bu dee ñu nag waa koñ bi ñoo xuloo doomu baay yëpp ci buntu kër gi la taxaw léegi nag yow li ngay wax nii li ngay wax ni dafa am période bu mu valable am période bu mu valable léegi yéen da ngeen a daje période boo xam ne nit ñu ngi attaqué Buxaari ñu bokkul ci ñu léegi période bobu bu amé on défend Bukhari d'abord. D'accord on défend Bukhari d'abord et puis bu bu kaay Bukhari bi jeexee ñun ñu rentewaat suñu biir c'est ça qu' vous dit cest à dire maintenant yéen bépp critique bu ngeen waroon wax ci Bukhari nopi leen ko bañé paré. Légui ñun ñëpp ñu def bloc puisque yow li ngay wax ni donc ñun ñëpp Bukhari ñun peut être 80% bi ñun ñoo ñun ko bokk gëm ko donc même bu ñu amee différence peut être ci 2% wala 3% pour la. donc ñun nañu jàpp ci quatre vingt pour cent bi ànd ñun def bloc xeexandoo ak ñi nga xam ne ñoom cent pour cent bi yëpp la ñu weddi léegi ñooñ bu ñu demee ba régler seen ka ñun ñu continue ñu ñëwaat continuer ñun suñu xeex parce que ñun ñu ngi doon discuter donc ñun ñu ngi discuter suñu biir on peut continuer à vie tant benn élément extérieur surtout nag ñoo xam ne dañoo nekkoon ay jullit tubbi et c'est ça le cas loolu mooy problème bi bu doon woon bu doon ay ay ñeneen ay étranger

wax nga un peu ci tariqa yi wax nga un peu ci nooy critiquer benn xadis xadis boobu nga wax bu fekkee bu fekkee maanaa bi wurul léegi bàyyi na question bi ma bëgg laaj foofu léegi pour pour euh, déterminer un xadis wérul lan mooy règle bi pour ñu ne xadis bi wérul lan mooy règle bi ban règle lañu war a appliquer pour ne xadis bi wérul léegi c'est-à-dire benn xadis jarul ngay dugg ci benn xadis ah léegi on prend un xadis on dit xadis bi wérul léegi comment doit-on faire nan la wara def nan lañu wara procéder pour aboutir à la conclusion que ne hadith bi wérul euh, question bobu la lay laa lay ki ma arrêté ba ci baal ma tuuti manote question bi ci yàlla bu fekkee am na bëgg wax mën nga koo continuer waat le temps ma non non non c'est bon c'est bon lolu moy lolu moy lolu moy question légui on a un hadith on a un hadith je te je te donne un hadith n'importe lequel je veux savoir hadith bi wér wala wérul comment je dois procéder voilà <coughs> jërëjëf imam ci ci question bi amna solo mais bala ma ci tontu ma ñëwaat ci taaqib ci li nga li nga commencé sank moy on fait bloc on défend Bukhari après ñu doga nangam mais dafa am ben affaire bu ma wax sank mo xamantene loolu lañu ñu jël en considération moy jamono ji ñi nekk dañu nekk ci ben monde globalisé bo xamantene yow bo taxawé di défendre lo xamantene ne na la leer yalla ne ki ngay défendre loolu euh, face pour moi? mën na ëlbatiku jël téléphone am dégg beneen antithèse boo xam ne mën na koo jax-jaxalaat ba li nga ko waxoon yëpp mu jàpp ne du dëkk kooku je pense qu'on ferait mieux que ñu jàngal ko jox ko argument yi xamal ko lu baax ak lu bon li xamal ko thèse bi ak antithèse bi ba mu mën a tànnal boppam plutôt que di ko jox benn thèse kese suñu doomi bàjjen yi sol seen tubay rakk yi foofu lañ juumee mooy dañu jox seen taalibe benn façon thèse kese joxuñ leen antithèse

déedéet mooy nga jox ko tontu tegu ci xam-xam ma ñëw ci sa question bi léegi nan la ñuy xàmmee xadis bu wér wala bu wérul règle xadis wér yaakaar naa imaam xam nga ko première bi mooy ittisaalu sanad ñaareel bi mooy mu bañ a am inqitaa wala mu am shuzuz wala mu am illa illa mooy mu am benn euh, ràgg-ràgg boo xamante ne mën na koo mën na koo mën na koo lor moo xam ràgg-ràgg bi nekk lu feeñ wala lu nëbb généralement nag illa yu mel noonu ci matan lay am ñetteel bi mooy sanad boobu chaîne de transmission boobu ñi ci nekk ñëpp ñu nekk ay nit ñu góor mooy ay siqaat koo xamante ne nii amul benn jikko ju bon koo xamante ne musuñ ko askanal fen nga jégal ma ci kàddu gi waaye noonu la ko bokk alkazib wala koo xamante ne nii mokkalam dëgër na mooy daabitu nafsi daabit kaamilu dabt même bu fekkee dabtam dafa wàññeeku kooku xadisam dafay wàcc ci rutba wu saxiix dem ci rutbatu xasan wala saxiixul li xayrihi donc يكون يكون الحديث ذا سند مو ام بن سند سند بي نيك متصل ba pare nekk ay siqaat fulaan an fulaan an fulaan fi ñu koy jëlee yëpp ñoom ñëpp ñu nekk ay nit ñu góor ba pare itamit mu nekk xadis boo xamante ne du am chuzuz du am illa lii mooy première règle bi ñuy xamee xadis bu wér ci gàttal waaye waaye ginnaaw règle bi ndax foofu la mbir mi yem déedéet am na yeneen règle bi ci njëkk mooy alxaafizul iraqi wax naa ko fi laaj passé xaw ma be ci kaw aouzu billahi min kalimati ana dafa wax ne ci biir alfiyatul iraqi wa bi saxiixi wa daifi qasadu fi zahirin lal qat'u wal mu'tamadu bu ñu waxee xadis bu wér wala xadis bu wérut borom xam-xam yi dañ ci jublu ci zahir bi kese waaye duul loo xamante ne dañ ciy dogu ne xat man jugee na ci yonentu rawatina nag xadis boobu bu fekkee xadis ahad la maanaam duul xadis mutawatir léegi xadis boo xamante ne am na illa ci matan bi moo xam illa bi nekk lu feeñ lu mel ni mu wax loo xamante ne dafa indi nakaara illa bu am nakaara zahira même bu fekkee isnaad bi wér na matan bi dafay am problème ma jox la ci benn exemple benn xadis bu nekk ci buxaari boo xamante ne dañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bés am lu xew mu wax ne kan moo may defal nangam ñu ne am benn waay bu jug waa jooju saat la tudd te saa ñaari saar ñoo amoon kenn ki muhaajiri la kenn ki lansaar ki kenn ki ñoom ñaar ñëpp ci lansaar lañ nekkoon waaye kenn ki ci aws la nekk kenn ki ci xasraj kañ wax ne moom moo jug kañ fa tudd turam bi fee boobu di am génn na àdduna ay ati at balaa loolu di am donc loolu déjà illa la ci matanu xadis bi kon même bu fekkee sanadu xadis bi wér na matan bi am na problème loolu benn exemple la exemple bi mooy xadis bu nekk ci saxiixu muslim bu abu sufyaan ñëw na yonent bi damaa bëgg a dugg ci lislaam waaye dama lay tegal ñetti condition boo ko nangoo ma dugg ci lislaam xadis yi boo bëggee mën naa laa jox seen numéro première condition bi yonent bi ne ko lan la ñu ne yonent bi ne ko lan la mu ne ko mooy am naa doom ju rafet yoo xam ne moo gën a rafet ci arab yi bu tudd ummu habiba dama la koy may nga takku ñaareel bi mooy sama doom muawiya nga jël ko def ko mu nekk sa secrétaire di la bindal ñetteel bi mooy nga def ma ma nekk commandant ci benn ci armée wu ñu ne yonent bi neena nangu ñett condition yépp abou Sufyaan dal di tuub bo delo ci taarix da ngay gis ne bi abou Sufyaan di tuub fekk na yonent bi tak na Ummu Habiba depuis bi Ummu Habiba nekké Habasha donc déjà hadith bobu dafa am illa ci matan bi dilé que sanad bi wérna sanad muslim la donc charte muslim la dafay wér surtout nekul hadith bo xamantene munqati la wala bo xamantene dafa am ay ay tadlis ci sanad bi moy mu anan ci mudallis donc déjà illa boobu noonu illa la bu yàq xadis bi ci zaahiram ñaareel bi mooy xadisu jassaasa bi nga xamante ne ci borom xam-xam yu mujj yi sax ku mel ni ibnu Usaymin nee na xadis bi am na problème te xadis bi mu ngi ci muslim sanadu muslim la yor donc ci gàttal lii mooy ñaareelu stage bi ñetteelu stage bi mooy nga indi xadis boo xamante ne waaqia weddi na ko même bu fekkee silsila zahabiya la am te waaqia weddi ko xadis boobu mënta wér wala alquran weddi ko ma jox ma jox la benn exemple boo demee ci saxiixul Buxaari di nga gis xadis boo xamante ne dafay wax ne euh, jant bi xadisu Abu Zar jant bi saay buy so dafay dem ci suufu alxarash mu sujjoot foofu foofu lay jant bi di soowee ñu ne Abu Zar yonent bi moo ko laaj ne ndax xam nga fan la jant bi di jëm mu ne ko déedéet mu ne ko dafay dem sujjoot ci suufu arash bu bët setee mu ñaan ndigal yàlla jox ko ndigal mu doog a fenk tey jii xam-xam ak waaqe weddina xadis boobu noonu jublatan wa tafsila adduna bi jamono ju nekk am na fu jant bi di fenk xëy na te xam nañ ne jant bi du dafa am fu muy dem di sujjoot planète yi ñoom ñoo koy wër donc xadis boobu di ko askan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama même bu fekkee chaine bi silsila zahabiya la mooy une chaîne en nord wala en jama c'est un hadis qui a un li ci gattal la rek bu fekkee sa question bi tontu ma ko nga wax ma ma leeralaat. Ah, léegi ñu ñu reste resté ci ci question boobu. léegi léegi yow pour pour euh, pour analyser benn xadis utiliser nga ci li ngay def ci li nga wax ni utiliser nga ñaari méthode première méthode bi nee nga Usaymin nee na. d' accord ñetti méthode ñetti waa non waa bon non deux méthodes deux méthodes la laa jàpp mooy benn métode bi mooy da ngaa def def référence mm-hmm. cest à da ngaa joxe référence su benn xam-xam benn borom xam-xam bu ñu référencé. mooy nga ne Ibnu Usaymin nee na léegi yeneen yi yow yaa ko waxal sa bopp wala beneen borom xam-xam moo ko wax. yan doon. léegi yeneen xam nga am nga yeneen yeneen xadis yoo analysé. Mm-hmm. léegi xadis boobu léegi yow yow yaa yow yaa defal sa analyse bopp la wala dafa am beneen benn borom xam-xam bu def analyse bi nga reporté ko loolu laa bëgg comprendre. waaw kon continuer le temps ma pare non non non benn question boobu laa am pour le moment. ok léegi euh, ndax xadis yu wér ci àdduna bi ak xadis yu wérut yépp parce que question bi nga indi dafa am beneen wax bu muy jur. ndax nit ku ñëw ndax nit ku ñëw ne xadis sàngam wérut rek. dafa wara am benn borom xam-xam bu ko wax wala moom mën na koo wax teg ko ci ay argument wu boppam bu fekkee loolu la maanaam bu fekkee par exemple man damaa wax dara ñu laaj man ndax man maa ko waxal sama bopp wala dafa am borom xam-xam yu ko wax yu ma jiitu fi'lan am na ay borom xam-xam yu ma jiitu yoo xamante ne wédd nañ ay hadis yi Buxaari te hadis bii ma la wax ni léegi boo delloo ci téere bi tudd al fi l ahadis al mawdua wala alal ahadis al mawdua fil jaami' as-saghir bu al-Hafiz al yaakaar naa xam nga téere bi indi na fa hadith bi ak yenen hadith yu dul yu bare bare te même wax ji ma fa wax wax nako donc du lo xamantene man mako ko ak sama bop di lek man suma ko waxoon itam du doye rek ci ngane ma yow ya ko wax kon kenn du ko jël da fay laaj nga indil ma tontu bu leer fay laaj nga indil ma argument bu leer bo xamantene mom moy mooy limay wax que ne jant bi fay sujjot ci souf al arash même bu fekkoon man mako wax waxuma la man sax même bu fekkoon Vladimir Poutine moko wax wala Emmanuel Macron moko wax ne ubbi nañ sen téere bi version française gis nañ seen yonent bi ñu askan ko ne dafa wax ne jant bi dafay sujjoot ci kanamu arash te astronome yeek fina scientifique yi ak xam-xam saxal na ne jant bi amul fenn fu muy dem di sujjoot apporter nous des réponses dafay soxla ñu indil ko ay réponses duñ toog di ko laaj ndax xam nga xam-xamu hadith xam nga hadith bu daayif xam nga nang nañ ko jox ay réponses doog a wax loolu donc ci gàttal loolu laa bëggoon loolu laa mënoon tontu ci sa question bismillah léegi Cheikh Baye ba léegi ñu resté foofu léegi yow ki nga cité sànq da nga da nga ne alxaafid da nga ne alxaafid bapare wax benn tur. alxumaari. léegi non léegi xaafis mooy lan. bismillah wax ma mooy lan. non yow laay laaj kay alxaafis mooy lan. bu fekkee ci langue arabe kese la alxaafis mooy. ku non ci ci xadis ci xadis. voilà bu fekkee ci xadis la critère xaafis minimum. moy ku mokal ay junney junney hadith borom xam-xam yi wuute nañ ci taqim ñaata junney hadith la mën mokal amna ñu wax 100000 hadith amna ñu wax 20000 hadith amna ñu wax 50000 hadith amna ñu wax sax 500000 hadith d'abord wayé nak ci def ko dans les faits pratiquer ko al hafiz ak muhaddis ak allama wala al imam yëm dafa am ay wuute nit ki pour ñu considérer ko ne hafiz la premier bi moy il faut bép fànnu hadith mo xam muy ilmu riwaaya wala muy ilmu diraaya wala muy ilmu ilmul mashaxa lépp mu am ci rusuux par exemple buñ ne xumaari mi xaafis la pourquoi ñu wax ko xaafis la te waxuñ ko albani mooy ne xumaari am na mashaxa téere boo xamante ne ni ay tartibu suyu xam la jëlee ko ci mujam comme ni imaamu tabaraani def ñaareel bi bind na ci ay fànn xadis te benn bu nekk wane na ne am na ci loxo bu gudd mooy ci mustalahul xadis ci mutuunul xadis ci shuruxul xadis ci ilmu riwaya ak ilmu diraya ak ilmu rijal donc koku meun nañ ko considérer comme hafiz kenen kudul koku nak meun mën nañ koo considérer ben allama rek wala ben talib wala ben muhaddis bismillah kon legui nag sama question sama tontu bi djubul tamit meun nga ma maa non sa tontu déedéet sa tontu bi jub legui nak sa tontu bi motax ma jàpp ne yow motax ma jàpp ne yow muno muno muno muno amo muno analyser hadith bané wérul xam nga lutax puisque légui ñun ñi ci ñaari façon lañu mëna analyser mooy xadis bi ñu ne wérul puisque une personne habilitée moo ko wax léegi xam nga xaafis bi lan lay jëriñ ci wëral xadis bi puisque léegi xadis bi pour nga ne wérul il faut xadis bi képp fu munti nekk ci bépp téere nga xam turuqam yépp nga xam turuqam yépp képp fu am xadis bu bokk ak moom bu bokk ak matn bi maanaa nga xam léegi je dire yow pour nga pour nga pour nga mun a wax xadis bi wérul nga waxal ko sa bopp mooy xadis bi tu es sûr que kenn dootu ko fekk feneen wala yow xadis bi fépp fu mu nekk dem nga fa dem fa yaa xam matlu bi nga fa demee yaa xam sanadu sanad bi nga fa demee dama bëgg wax ne léegi par exemple comme ku mokkal mille xadis mënul wax benn xadis wérul ku mokkal deux mille xadis mun na am mënul wax benn xadis wérul pour nga mun a wax xadis wérul il faut yow xadis bi nga ne amul léegi xadis bi seet naa ko ci xadis yëpp seet naa ko ci matn yëpp rijaal yi nekk ci xadis rijaal rijaal yi nekk ci xadis bi xool naa leen fépp ba xadis bi ma dog ci mën a def conclusion parce que léegi yow léegi boo nee parce que li ma wax nii xam nga ko c'est-à-dire benn xadis mun na mun na mun na mun na daif ala sharti diw nekk xasan ala sharti beneen beneen mu xadis wala comprendre nga li ma bëgg wax waaw léegi léegi loolu loo xalaat yow léegi pardon bàyyi bàyyi. Mm-hmm. pardon su ma la su ma la bëggoon laaj baal ma c'est une question un peu personnelle la bëgguma poser débat ba c'est pas un coup bas dégg nga léegi su la bëggoon laaj est-ce que yow à peu près xam nga ñaata xadis nga mokkal xam nga ko à peu xam naa ña ñaata xadis nga mokkal. mënuma ko du ma ko wax ci public waaye xam naa. damay damay léegi non léegi man tamit loolu loolu mooy déterminer non non non non damay damay damay ragal cat waaye mokkal naa mokkal xam naa ko te xam naa ñaar. waaw non je veux dire xam nga loolu laa bëgg wax c'est-à-dire puisque léegi comme ñi ngay wax ñi ngay wax ñu ngi ñi ngay wax ñu ngi ñu ngi euh, wëral xadis wala ñu ngi koy ñu ngi koy tadd ifloo c'est puisque amul benn téere xadis boo xam ne jànguñu ko léegi xadis bi fépp fu mu munti nekk ñoom mën nañ la wax xadis bi mu ngi puisque yow léegi bu fekkee xadis yi nga xam ëpp ñu. xadis yi nga xamul mun wax benn xadis wérul puisque mun na am xadis bi war a bi wara a modifier sa xadis wala xadis bi ko war a yëgal ci beneen niveau mu ngi bokk ci xadis yi nga xamul mun nga def commentaire ci loolu. d'accord d'accord mun naa mun naa ñëw ah. Mhm. bu fekkee dagguma la bu dee dama laa dagg baal maa nga. non daggoo ma daggoo ma daggoo ma. d'accord euh, man bis bu ma demee ba toll ci di fi ñoom Roumari toll ak fi ñoom Mawlana Chérif Ibrahim Saleh toll boobaa mën naa bind. baabi taxaddus bi ni'matillahi ñaata xadis laa mokkal waaye pour le moment man damaa jàppe son bopp sa taalibe sax yow waxuma laa ne hmm. taalibe borom xam-xam man damay jàng ba léegi donc mënu mënumaa hmm. toog wax ne nangamu xadis laa mokkal auzu billahi min kalimati ana l'essentiel hmm. moom bi ci topp itam mooy imam dafa mel ni débat bi mu ngi bëgg a jël benn technique boo xamante ne bu ma sañoon ñu indiwaat ko feneen mooy dafa mel ni man tey ji non non maa ngi jégalu yow kay amoo lenn looy jégalu man maay tuub man maay tuub bu baax dafa mel dang ma tek pour questionner ma pour génnee sama de passe-passe wala pour wane ne man dama attaqué nangam alors que euh, yakarna euh séance de questions réponse la ñu def mutuel man mi tamit amna ay questions yu mala wara poser waye mang koy garder buñu paré inshallah bala temps bi di jeex. Hmm. gis nga ni ngay défendre Bukhari non lay défendre Bukhari seulement que dañoo wouté méthode buñ koy défendre dañoo wouté passe-passe buñ koy défendre je donne juste un exemple. Euh, wax nga ci émission bi la Tunkara invité won que ne imam al bukhari dafa wax ne téeréem bi mu ko tuddé wala kenn ci serigne bi moko wax génné lañu téré bo xamantene da ngeen koy tuddé al jami da fay nek al jami'u al musnad al sahih al mukhtasar nangam ak nangam bon comme sahih al bukhari tuddé al jami'u al musnad al sahih al mukhtasar fi umur rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi non la tuddé téeréem bi ñukoy ikhtisar sahih al bukhari imam est-ce que est-ce que loolu mën nga maa génneel kan ci sëriñu Buxaari yi mook ko wax. Ibnu Rahaway. ma ma maa ngi ñëw maa ngi ñëw maanaam Ibnu wa Ibnu Rahaway loolu du du lafzu bu ko waxee Ibnu Rahaway waxul loolu Ibnu Rahaway li mu wax rek te loolu sax dañu nettali ne Buxaari dafa toogoon ci xalaqa Ibnu Rahaway Ibnu Rahaway ne xellente woon kenn ci yéen def naa ngam Buxaari mu ne ci laa commencé considérer di ko bind léegi dafa am benn problème boo xam ne imaam bëggoon naa la confronter nga dimbale ma. ndax xam nga al al jassas hafiz al jassas ndax xam nga ko dede dede ci bind téere bi tuddu al ahkam al quran al jassas dede xam ko dede voilà euh al jassas kenn la ci borom xam-xam yi gëna a siiw mu ngi am téere bi tuddu ahkam al quran euh turum deug mom moy euh euh Ahmad ibn Ali ñu koy woyé abou bakkar mu ngi juddu ci 305 de légère génn aduna 370 de légère boo delloo ci ahkaamul quran boobu lil jassaas boo ko tàppee léegi di nga ko gis ahkaamul quran lil jassaas di nga gis benn xadis boo xamante ne Buxaari daf koo indi xam nga jassaas lu mu ci wax daf ne xadis bi mawduu la loo xamante ne mul malaaxida yi wala mulxiduna yi ñoo ko watoo maanaam xadis la bu ñu fabriqué ban xadis la mooy xadis buy wax ne yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal iyaazu billah njabar nañ ko ba njabar gi jàpp ko ba parfois muy def lo xamantene ne ko xamul ne def nako delul ci ahkamul quran bu jassas ci volume 1 ci page 60 ci tafsiru suratul baqara bi mi wax ci wattabau ma tatlu shayatin ala mulki sulayman boobu di nga gis mu wax fa textuellement mune wa mislu hadhihi al akhbar min wadi al mulhidin façon xibaar yi ginnaaw bi mu indee hadith bi ba pare xadisu muslim xadisu bukhari bi ma wax mu ne façon yi ci li borom ci mulxiduuna yi wadoo la fenal ko yonent bi dugal ko ci téere yi ngir jax-jaxal xelu jullit ñi léegi xadis bu mel noonu tey ji imam boo ko indee wala benn yéefeen indi ko ci sa kanam ne la seen yonent bi de da ngeen na wax ne dañ koo liggéey ba mu tàqali ko ak sagoom ba day def day day day foog ne def na dara fekk defu ko léeg-léeg sax day foog ne dikkal na ay soxnaam fekk dikkalu leen te seen alxuraan bi bon je parle avec euh, équidistance dafa mel ni benn waay mooy wax seen alxuraan bi dafa wax ne yéeféeru màkka yi liñ doon jamee jullit ñi sax mooy di leen wax ne in tattabi'una illa rajulan masxuura yéen ci ngeen topp nii benn waay la bu ñu njaber léegi ngeen ñëw ci xadis saxal ne seen yonent boobu njaber nañ ko comme ndeke li seen li yéeféeru màkka yi doon wax noonu dëgg la imaam naka nga may dimbale nga lay ma loolu ngir yàlla c'est une question waaw non non non léegi ah, gis nga pour man ces genre de xadis ah c'est les hmm. meilleurs pour moi ce sont les meilleurs hadith de Bukhari en fait yooyu sax moo tax ma vraiment gëm Bukhari xam nga lu tax hmm. xam nga léegi Bukhari yi ak muslim ils ont ils ont les sihah ñi ci topp ils ont des sunan hmm. ñu ñëwaat ba Ibn Hibban ak Ibn Khuzayma ñooñu amaat ay sihah léegi qu'est-ce que ça signifie ça signifie que Bukhari ak Muslim c'est des ñoom ay scientifique lañ puisque léegi bu ñu delloowee bu ñu delloowee ci ci usul wala ci ci surut ci surutu muslim bu ñu delloowee ci surutu muslim mus muslim laa yastanbitu al ahkam min al ahadis je dire que léegi ñoom dañuy fixer dañuy fixer seeni norme mooy seeni surut d' accord mais ci seeni surut maanaa xadis bi bokku ci ci seeni surut globalement globalement comme maanaa bi yow ni ko firee nii ñoom bokku ci seeni surut léegi ñoom ñoom ñoom parce que léegi en vérité bu ñu waxee saxiix bi saxiix bi mooy mooy d' abord sanad bi mooy matn bi mooy matn bi ñoom amuñu ci doute donc ñoom maintenant il faut une enquête ils font une enquête ils aboutissent a un résultat et ils publient des résultats même bu leen résultat bi arrangé wul puisque léegi lu tax lu tax lu tax lu tax léegi Ibn Hibban ah lu tax Ibn Hibban léegi gars yi dabaat nañ ko ci mag Ibn sax yi la yore lu tax Ibn Hibban fekkiwul muslim ak Bukhari ci ci ci sixa ci wër puisque Ibn Hibban yéen li ngeen di wax nii da koy considéré Ibn Hibban day xool day xool maanaa xadis bi est ce que lii jaadu na wala jaaduwul Ibn Hibban bu xoolee maanaa bi mu ne lii par rapport ak li ñu xam par rapport ak yeneen yi jaaduwul Ibn Hibban du ko jël mais Bukhari ak Muslim surtout Bukhari yoonam nekku ci et pour man loolu pour man loolu mooy loolu mooy rigueur mooy rigueur scientifique bi autorisé wul boppam autorisé wul boppam laal hadis bi léegi moom bu bu defee siyaak hadis bi ko ni mu ko étudier hadis bi répondre ay surutam da koy jël pour man pour man loolu y a aucun problème dessus y a aucun problème pour moi loolu mooy loolu mooy loolu mooy sama sama sama tontu ci loolu puisque bu ngeen demee ci saxi ibn ibn ibn Hibban ibn Hibban il ferait pas ça bu doon ibn Hibban day bàyyi xadis bi parce que ibn Hibban il se permet ci ay surutam di réfléchir xadis bi lii lii la tekki lii la tekki te ba pare ya Cheikh Baye Cheikh Baye mhm. loolu loolu li ngeen li ngeen di wax nii loolu la ñu wooyee subjectivité li ngeen di wax nii loolu la ñu wooyee subjectivité et subjectivité bu toujours ça ça nu mu tudd day nëbb dëgg puisque que li nga hmm. ngay wax ni bu amone rek Buxaari day subjectif day subjectif moy léegi mom mu ngi analyser wax bi est-ce que li arrangé dama wala arrangé wu ma loolu day dàq objectivité objectivité moy mom il a posé sa norme moy bukhari tek na ay conditions ne man ni lay tànnee hadith mu gis hadith bi hadith bi satisfaire à ces conditions mu jël ko léegi nak yeen bu ngeen ko dugalee ci analyse bu ngeen ko dugalee ci analyse rek day fekk Ibn Hibban bu dugalee ci analyse day fekk Ibn Hibban et dans ce cas il devient subjectif il n'est plus objectif et pour man loolu sax moo li ngeen di wax nii moo gënoon dangereux moo gën a dangereux ak ak yi boobu li Buxaari yi def loolu moo ci sama tontu. ok euh, xam naa baal baal ma tuuti man ma te question bi balaa ma koy fàtte. voilà premièrement li ma bëggoon a wax mooy Buxaari li mooy li nga mujj a wax Buxaari a posé ses normes mais balaa ñu ciy ñëw imaam réponse bi ma doon xaar aw ma ko dama laa indil xadis. bumbukanti ak aayo ay aaya alxuraan alxuraan dafa dàq ne yonent bi kenn njabaru ko yonent bi musuñ koo njabar yonent bi yàllaa ko sàmmal boppam benn xadis d'un côté ñëw saxal ne yonent bi njabar nañ ko ba dafay def lu mu xamul dafay jàpp ne def na dara fekk defu ko fekk yéeféeru màkka yi ñoom loolu moo nekkoon seen thèse loolu lañ doon défendre que ne yonent bi li muy wax ne ay waxu dof la waliyaasu billah waliyaasu billah dafay dañ koo njabar moo waxu dof lay wax alxuraan saxal ne وما هو بقول شاعر ويقولون إنه لمجنون وما هو بنangam lépp alxuraan dàq ko wax ne dofu jinne jàppul ko njabaruñ ko li muy wax ni ci yàlla la jugee hadis bi saxal tout à fait le contraire de ce que le Coran a dit que ne dañ koo njabar ba dafay wax lu mu xamul dafay def lu mu xamul ma ne la hadis bi Bukhari indi na ko ci téerim alxuraan wax na lu wuuteeg moom nan la ñuy def imam tontu woo ko mais dafa mel ni da ngaa tourner autour du pot que ne imam Bukhari objectivité Ibn Hibban. bàyyi ko mel ma dagg la bàyyi may ma ma dagg la bismillah bismillah kon léegi wa wajadaka daallan wa wajadaka daallan kon boo ci deful taawil doo ko firi déedéet déedéet mën mën nga koo firi sans sans nga def ci taawil parce que arab yi arab yi baal ma mën naa tontu wala tontu tontu addalaalu addalaalu ci arab du ne fu mu ñëw rek réer lay tekki mu ngi mel ni li ñooñ yonentu yàlla yusufa doomu yonentu yàlla yaqub yi waxoon yonentu yàlla yaqub innaka la fi dalalika al qadim duut ne dalal fu mu ñëw réel lay fekk tekki dalal dina ñëw sax firi mbëggeel ak cofeel bu ëpp dalal ci arab dafay firi loolu te loolu boo delloo ci arabu arab yu njëkk yi littérature arabe yi di nga fekk fu ñuy utiliser baat yooyu te boo delloo ci xadisu ba ci ci tafsiru borom xam-xam yi nga xamante ne nii ñoom ñoo gën a dégg alxuraan ñoom ñoo gën a am zawxu alxuraan muy borom xam-xamu suufiyanke yi te jàpp naa ne yow suufi nga firee wuñu wa waja daka dàllan que ne yonent bi dafa mësoon na réer yonent bi mësta réer bàyyi ñes radiallahu anhu dafay wax ne sax dalalun bi zaatillahi aynu hidayatin réer sax bu doon réer la réer ci jëmm yàlla ji mooy dëgg-dëgg jub donc ni ñu firee aaya boobu mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na yàlla xamoon na yàlla jeexoon na ci yàlla dënn bi fees na dell ak leer waaye xamul ban méthode la war a jaaree pour transmettre loolu yàlla daal di ko tegal processus ak méthode comme ni mu defal yonentu yàlla yusufa kazalika kidnaa li yusufa la alquran wax nii lañu nii la ñu fexeele Youssoupha maanaam liñ ci bëgg a wax rek mooy nii lañ ko programmé lee pour mu def nangam pour atteindre objectif am kon fahada yàlla dafa jubal yonent bi ci yoon boo xamante ne bu ci jaaree li nekkoon ci dëndam bi dina ko mën a génnee ba jox ko nita bi sans pour autant mu kii waaye ma ñëwaat ci li ma bëggoon a wax mooy imaam tontuwoo sama question ci li ma wax ne alxuraan dafa wax ne yonent bi njabaruñ ko Buxaari saxal na yonent bi dañ koo njabar ba dafay def lu xamul te xadis boobu xadis boobu aduna bi ba aduna bi daj sahaba yonent bi yépp les 124000 wala 100 nangam mille kenn nit moko ci xam kenn nit lañ wax ni moko ci riwaya muy soxna aisha soxna aisha moomu kenn nit moko jele ci mom muy urwatu ibn zubayr urwatu ibn zubayr moomu kenn nit moko jele ci mom moy domam hisham ibn urwa donc ahadun an ahadin an ahadin léegi nak mbir mo xamantene ne yonent bi def na 6 mois yo xamantene da fay def sax lu mu xamul dafay foog ne def na dara fekk def ko six mois ci yenn riwaay loolu lañu wax Medina ni mu bëri ay naafeq ni mu bëri ay jullit jugam yàlla ni mu bëri ay màkk ak alentour bi ni mu bëri woon ay yéeféer yahud yeeg nasaraan yi amul kenn ku ko ci mësa nettali ku dul kenn nit soxna Aïcha ci boppam amoon na ay ay wujju ñoom soxna umu salama ñoom umu habiba ñoom diw ñoom diw amul kenn ku mësa xam ne yonent bi njabeer nañ ko ku moom soxna Aïcha moom kenn يونت بي صلى الله عليه واله وسلم دفع بين حديث نه اذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وترون انه منكم قريب تي غاتال رك بين ديغ حديث بي وترون انه منكم قريب فانا اولاكم به واذا سمعتم واذا سمعتم الحديث عني تنكر قلوبكم وتنفر منه اشعاركم وابشاركم وترون انه منكم بعيد فانا ابعدكم منه bu ngeen déggee ne man muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa wax nangam mu nekk lu seen xol bañ maanaam bu ngeen ko déggee seen sens nanguwul ko xel mu sell nanguwul ko mba bañ a guus nanguwul ko xam leen ne xadis bo aw maa moom benn affaire waxum ko bu ngeen déggee xadis bu am melokaanu le contraire na mooy xadis boo xam ne boo ko déggee sa xol dal ci bañ a guus nangu na ko xel mu sell nangu na ko xam leen ne maa ko wax xadis bi di nga ko fekk ci musnad ahmad di nga ko fekk ci yeneen téere ci gàttal ma ñëwaat ci li nga wax mooy imaamul Buxaari dafa posé ay normes imaam ndax mën nga maa indil benn téere ci téere xadisu àdduna bi fu Buxaari waxee ne man Buxaari Muhammad ibnu Ismail lii ak lii ak lii mooy sama norme ndax mën nga ma kaa indil bu fekkee mën nga ma kaa indil bismillah maa ngi xaar bu fekkee mënoo ma kaa indil man sama affirmation mooy amul amul fenn fu Buxaari mës waxee moom personnellement explicitement ne moom Buxaari lii mooy ay normes borom xam-xam yi ñëw ginnaw gi ñom ñoo top téré bi dal di gis ne kat bukhari méthodologie bi lay jaar ñu dal di teural ne li moy ay shurutu bukhari te li wax ni du sama wax bop di ko fekk ci téré bi tuddu an nukat ala sahih al bukhari bu ibn Hajar al asqalani di ko fekk ci yenen téré mustalah itam lu melni ni al nukat ala ibni salaah ak yu mel noonu ibn Hajar saxal na ne bukhari mësta tëralal bopam ay charte ne man bukhari li moy samay charte ni lay jaar. ñaarel bi mooy saxiixul buxaari amul benn manuscrit benn manuscrit kese amu ko ay riwayat yu bare bari la amoon di lekk nag riwaya bi ci gën a siiw version bi ci gën a siiw mooy version firabri bi nga xamante ne ginnaaw bi ñoom la ñoom ibnu xaajar jël ak yeneen borom xam-xam yi dajale ci te version firabri bi bokkut ak version bu mat bi nekk ci suñu loxo jamono ji donc am na yu ci kii yoon ñetteel bi mooy ibnu xi ibnu xibbaana nga ne dafay réfléchir ci xadis loolu subjectivité la réfléchir ci hadith yalla ya ak yonent bi ñu ko digal ci hadith bi mala la wax léegi ke ne yonent bi wax na ne bu ngeen déggé hadith bu ak xel dakk ak a gus dakk na nga xamné ne waxumako waye imam bukhari mi nga wax xaaral ma jox la ben exemple imam bal ma nga jël not ngir yalla nga laaj li nak sous forme de question la nan lañ koy lijeenté ndax imam bukhari dafa am objectivité comme ni ngui koy waxé wala bo délo ci sahihul bukhari sahihul bukhari ci xadis numéro deux mille deux cent vingt trois ci volume trois ci page quatre vingt deux volume trois page quatre vingt deux xadis numéro deux mille deux cent vingt trois di nga gis imaamul Buxaari riwaaye benn xadis boo xamante ne mu ngi ko jëlee ci benn sëriñam bu tudd euh, alxumaydi xadis euh, boobu lan la wax daf ne xaddasana alxumaydiyu حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا إمام البخاري من إندي شند ترانسميشن بفرق منه عبد الله ابن عباس وحنا نيخ xibaar dikkal na sayyidna omar ken diw sangam ديو def fulan diw sangam dafa jaay sangara sayyidna fi problème bi nekk mooy boo delloo ci musnadul xumaydi bi nga xamante ne ci la imaamul buxaari jëlee xadis bi nga xam ne sëriñu buxaari la xumaydi am na musnad mool nañ ko ñu ngi koy jaay ci volume un ci page cent cinquante quatre ci xadis numéro treize xadis numéro treize di nga gis alxumaydi riwaaye même xadis bi ci façon bu bokkut ak bi ko buxaari defee ce qui prouve quelque chose bo xamné dina ko wax buma paré lan la imaamul Xumaydi wax daf ni hadathana sufyan sana Amru bnu Dinaar qaala axbarani Taawus سمع ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمرا سمرة بن جندب مومو جاي سانغر ليغي بروبليم بي فيم نيك موي امام البخاري دا فا جيلي حديث سي سيرنيم sëriñam bi jox ko ko avec objectivité ak honnêteté intellectuelle ne ko diw sàngam la tuntu bi muy samora imaamul Buxaari bi ñëwee ci téeram bi ñëw bay bind loolu dëbb turu waa jooju noonu pour suturaal ko wala pour xaw ma léegi lii nan lañ koy tuddee ndax yéen académiciens yi lii dafa bokk ci maandute borom xam-xam parce que dañ ne imaamul Buxaari scientifique la donc j'imagine que travail académique la boo xam ne soxla nañ ñu xam ndax lii honnêteté intellectuelle la wala naka ngay jëlee hadis ci Xumaydi mu wax la turuwaa ji yow nga ñëw di bind ci sa téere nëbbu turuwaa te boo delloo ci saxiixu muslim saxiixu muslim mii rakk Buxaari di nga gis ne muslim moom tamit indi na même hadis bi mais avec beaucoup plus d'honnêteté intellectuelle que Buxaari boo delloo ci saxiixu muslim ci volume 3 ci page 1207 ci hadis numéro 1582 di nga gis muslim mu ne axbarana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb wa Ishaq ibn Ibrahim mooy Ishaq ibn Rahaway واللفظ لأبي بكر أبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة موي سفيان بلي حميدي وخون أن عمر موي عمرو بن دينار أن طاووس موي طاووس بن كيسان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا دونك مسلم عندنا حديث بي جليكو تي أي سرينيم سرينيم يوي جليكو تي سفيان بن عيينة sufyaan ibnu uyayna nettali na ko aboubacar ibnu abi shayba nettali ko ishaq ibnu rahawayhi nettali ko zuhair ibnu harb nettali ko itam al humaydi humaydi nettali ko buxaari buxaari ñëw dagg xadis bi nëbb ci turuwaa ji te lii nii yu mel nii def na ko du benn yoon du ñaari yoon du ñett yoon du juróomi yoon ci téeréen bi léegi question bi ma soxla rek pour ma jàll parce que am na leneen lu mu bëgg a wax vite fait imam lii lan lañ koy tuddee honnêteté intellectuelle la wala travail scientifique la bismillah non Cheikh Ba yi yi il faut ma il faut me vérifier quoi mën naa la ko yónnee léegi boo bëggee non de façon am naa am naa am naa saxi Bukhari d'accord am naa Sahih Bukhari mais ni nga ko ni nga ko analyser nii euh, sama xel mosu ci mosu ci dem donc lii tamit euh, bokk na ci yi ma noté xam ne après dama koy vérifier kon mën naa continuer mën nga continuer d' accord <clears throat> donc bis boo ko bis boo ko vérifié ba pare mën nañu jàppaat bis ñu def deuxième deuxième partie parce que waxtaan bi. Mm. xamoon naa ne dina am solo. Mm. maa ngi ñaan yàlla mu continuer ba nga xamante ne de temps en temps dinañ ñëw di di waxtaan nga di ñu gindi incha allah ci xam-xam bi ci barke mm. yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Euh, boo delloo ci saxiixul Buxaari ba léegi Seydina euh, di nga gis benn xadis boo xamante ne. imaamul Buxaari xam nga damaa dégg ci waxtaan bi nga wax ci 2STV nga ne pour mu jël xadis il faut que xadis bi nekk muttasil mooy mu am chaîne de transmission bu jokkoo te ñi muy jëlee noonu yëpp il faut ñu nekk ay siqaat te ba pare ñooñu tamit il faut ñu am jamono wante ak gisante mooy mu asara ba pare ñu gisante da nga ne wax nga sax ba joxe exemple ci Versière ak Alioune Cissé ak xawma yaakaar naa fàttaliku nga li nga waxoon si nga ne loolu moom moo u utalee muslim et c'était une un exemple très très pertinent macha allah maa ngi ci maa ngi la ciy jaajëfal baal ma nga xool saxiixul Buxaari volume cinq page quarante quatre hadis numéro trois mille huit cent quarante neuf trois mille huit cent quarante neuf imaamul indi na fa hadis boo xamante ne wuute ak charte yooyu nga wax yépp charte yooyu nga wax yépp hadis bi wuute na ak moom te pourtant mu ngi ci biir saxiixul Buxaari xadis bi lu mu wax xaddasana nuaym ibnu hamad xaddasana hushaym an xusayn an amr ibnu maymun qaala raaytu fi ljahiliyati qiradatan ijtamaca alayha qirdatun qad zanat fa rajamuha fa rajamtuha maahum amr ibnu maymun mooy nettali xadis bi kon jugeewul ci yonent bi jugeewul ci benn saxaaba ndax amr ibnu maymun du saxaabi kon imaamul Buxaari dèjà li nga waxoon ne dafay pour mu jël xadis il faut xadis bi nekk lu jokk diw diw diw ba ci yonent bi dèjà imaamul Buxaari wuute naag charte boppam moom fii ñaareel bi mooy jëleewu ko sax ci ab saxaabi mais ci benn waay boo xam ne dañ ne muxdaram la woon ci la ko jëlee ñetteel bi mooy xadis bi déglul li ci nekk waa ji mu ne ci jaahiliya avant l'islam dama gis ay golo yoo xamante ne dañoo dajaloo ci benn golo di jam parce que golo googu dafa jalo man tamit ma jël xeer di len di len dimbalé ci jam gi moy lapidation yakarna problème bi nek ci hadis bi bu wesso li ma ci wax ni moy d'abord il faut imamul bukhari dimbalé ñu wala yow mi koy défendre wala yeen ñi koy kii ngeen dimbalé ñu tontu ñu question yi premier bi moy ndax ci jahiliya jamono jahiliya sharia lapidation dafa amone wala dette ban yónentu lañ yónni woon ci waa jaahiliya ba mu tabaxal leen charia lapidation ba ñuy lapider loolu benn question la ñaareelu question bi mooy ndax golo yi dañoo wàccee ci ñoom charia dañ leen a togg jëf ba bu benn golo njaalowee ci ñoom golo laa wax de golo golo bu am nopp ak génn golo ba bu benn golo njaaloowee ñu di ko jam man yaakaar naa doomi aadama yi mukallaf yi doomi aadama yi sax du ñëpp mukallaf yi ci ñoom nga xam nga dafay nekk ku balaa dafay nekk am xel dafay nekk ku nagam surutul taklif xam nañ ko doomi aadama yi lañ togg jëf boobu te doomi aadama yi jullit ñi ci ñoom jullit ñi tamit mukallaf bi ci ñoom léegi golo gu njaalo golo gu njaalo bañ koy jam ba ngay taxaw di leen dimbale ci jam gi golo ak ci noppam imaamul Buxaari dugal na ko ci xadis ci téeréem bi ci xadis numéro wala ci noo ko mën a tuddee riwaaye numéro 3849 imaam riwaaye bi naka la ñuy def ak moom Euh, léegi léegi Cheikh Baye. waaw léegi nañu tëggaat débat bi. Mhm. léegi nag yow defal nga ma liste. waaw defal nga ma liste xadis yu bëri. mais xadis yi nga wax léegi xadis yi nga wax fii wér na ak wérul yëpp. xadis yi amuñu benn incidence. waaw je veux dire je veux dire gis léegi yow débat bi nga def tey jii nii bu doon moom nga defoon chaque jour débat amul. puisque ba léegi ba léegi yow léegi point point de divergence yi léegi euh, ñëw ñëwagoo ci léegi la problème mooy yow léegi hadis yi ngi fi wax yëpp léegi hadis yi yan mooy incidence ba tax léegi débat bii ñu war ko posé waat. voilà voilà léegi li ma bëgg a wax mooy <clears throat> mën naa kii bu fekkee dagguma la bu dagg naa la nga continuer. daggoo ma daggoo ma. bëggoon wax ci introduction bi bu taxutoon nag fi nga jëmale débat bi ci sa ci sa introduction moo tax ma proposé woon. ñu def dix minutes nga développé li nga bëgg a développé yëpp man ma ñëw jël dix minutes après ñu def noonu waaye comme nii ma ko choisir naa wax ci introduction bi kane boroom xam yi nga xamante ne ñoom ñooy jam yenn xadis yi ci Buxaari wala ñoom ñooy critiqué yenn xadis yi ci Buxaari naan wérul amul benn xadis benn benn ci saxiixul Buxaari millier de xadis yi moo amul ci benn xadis buñ ci jam boo xamante ne buñ ko jamee dafay laal benn ponk ci diine ci kon amul benn xadis buñ ciy jam boo xamante ne buñ ko jamee li nga waxoon ci plateau wu 2 bi dafay am mooy ne Buxaari dafa mel ni diine ji dafa mel ni immeuble la imaamul Buxaari ak muslim yi ñooy naka naka nga ko waxatee woon sax. ñoom ñooy euh, piliers yi. nga xamante ne ñoom ñoo téye rez-de-chaussée bi loolu d'accord ma ci woon maa ngi jéggalu nag ci ñàkk d'accord gi ndax suñu sëriñ nga waroo wax ñuy ñàkk d'accord amul benn xadis ci Buxaari bu ñuy jam boo xamante dafay laal benn pilier ci pilier wu lislaam yi ba tax ñu naan nit ki lislaamam manqué na wala diine manqué na te ñaareel bi mooy hadis yu Buxaari indi yëpp yu am rapport ak diine ji balaa Buxaari di ko indi ñu ko mag indi woon nañu ko Isxaaq ibnu Rahawayh mii sëriñu Buxaari am na téere bu tudd Musnad Isxaaq ibnu Rahawayh imaam Malik nga xam ne imaamul Buxaari jëlee na ci moom hadis yu bëri te jëleewu ko ci moom directement waaye mu ko jëlee ci euh, euh, euh, par intermédiaire u taalibeem bu tudd téere euh, téere Buxaari bi xadis yi ci nekk jugee ci Muwatta yëpp ci imam Malik di nga ko fekk ci Muwatta Malik ci ay ci yeneen riwaaya ak riwaayatu Yaxya ibnu Yaxya Laysi kon Buxaari même bu amul woon l'islam mat na ba pare l'islam mat na depuis jour bi yonent waxee al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati bu imaamul Buxaari judduwul woon bu saxiixul Buxaari existé wul woon du tax du du manquel benn pepp karaw ci l'islam benn pepp ñetteel bi mooy imaamul buxaari bi mu bindee ba pare ba léegi xadisam yi mu bind li ci ëpp li ci ëpp ci li ci wér di nga gis ne yeneen boroom xam-xam wéral nañ ko lu jiitu imaamul buxaari di jiitu di ko wéral kon yéen yéen a am problème yéen ñiy wax ne nañu défendre buxaari nañu protéger buxaari parce que buñ ko laalee diine ji lañ laal déjà li ma indi nii yow ci sa bopp d'accord nga ne amul benn incidence kon kay waroon ngeen d'accord a ñi nga xamante ne dañ naan leen li ngeen di wax naa li nekk ci Buxaari lépp lu wér loolu du dëgg maanaam loolu du wérut maanaam jëm mi wax ne lépp lu nekk ci Buxaari li moo wér nañ protéger Buxaari parce que mooy ponk diine ji c'est pas c'est pas dugut waxu xam-xam parce que lii ñuy nit ñi di jëm ci Buxaari après da ngay gis ne amul benn insidence ci diine ji mais dafay prouver ne jëfi doomi aadama la buy am ay manqué manqué di am ay mat mat bu ngeen nangu woon loolu rek konoon coor yi du jub tey jii bu doon li Buxaari dafa indi xadis wax ne yonentu bi yonentu la yàllaa ko yónni benn waaye ñëw jëm xadis boobu boobaa ci ngay mën a wax ne def mbooloo dem défendre Buxaari mais Buxaari waaye loo xamante ne waaqi a weddi na ko charia weddi na ko xel weddi na ko science weddi na ko ñu jam loolu ngeen ne déedéet nañ def armée kii euh, armée mexicaine dem défendre Buxaari ça ne tient bi may daanelee mooy euh, la ilaha illallah waaye ala itihaad mën nañu mën nañu tëggaat débat bi saay boo ko bëggee ah dafa am benn wax joowax ci 2STV mooy dañ ne imaamul Buxaari moo riwaaye xadis boo xamante ne xadis boobu amul tarixa du am ñaari xadis sax nga wax benn bi mooy xadisu euh, la ilaha illallah al maru ñaareel bi mooy xadisu euh, la ilaha illallah xadisu Abu Hurayra rawaahu Abu Daawud waaw ku ma ku ma hmm. nuyu yàlla daf may delloo yàlla daf may delloo sama kii sama sama ruuxo ba ma ba ma kii ba ma fay ko mais imaam xadis comme ni ma la ko waxee bu Buxaari existé wuloon xadis yooyu existé nañ bu jiitu Buxaari kon même bu Buxaari amutoon sax tariqa du tax tariqa ñàkk am wala soufisme ñàkk am ñaareel bi mooy sufism ak tariqa ajuwul ci Buxaari ak muslim ci alxuraan la aju avant Buxaari ak muslim ci alxuraan la njëkk aju parce que mbooleem ponku yi am ci soufisme mo xam muy tawassul mo xam muy am serigne mo xam muy jàpp wirde mo xam muy zikr mo xam muy bëgg yonent mo xam muy nangam lépp alcorane moko saxal lu jitu avant hadith di ñëw diko ko saxal قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني واتبع سبيل من أناب إلي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا أك حد أك آية يمل نون nga xamne duñ jeex donc wax ne xadis yooyu bu daanoo wala Buxaari bu daanoo xadis yooyu daanoo nañ te xadis yooyu mooy ne tarixa dafay daanoo je pense que c'était peut-être sabqu lisaan la peut-être euh, lam sabqu lisaan la waaye jàpp ma ne te xadis yooyu di nga ko fekk par exemple ci musnad Abu Daawud Tayaalisi Abu Daawud Tayaalisi waxuma la imaamul Buxaari waaye moo mag sax imaam Ahmad ibnu Hanbal musnadam moo mag sax imaam Ahmad ibnu Hanbal parce que Abu Daawud Tayaalisi mu ngi judd mille mu ngi judd de l'hégire génn àdduna deux

sagam xadis boobu di nga ko fekk ci musnad abu daawud tayaalisi di nga ko fekk ci ñoom musannaf bu abdurazaq ibnu xambal nga xam ne sëriñu imam ahmad la sax sëriñu imam ahmad ibnu xambal te imam ahmad moom ak buxaari kon gis naa ne ala yati xaal mën nañu mën nañu tëggaat débat bi ñu waxaat ci yeneen question parce que am na question yu bëri yoo xam ne traité wuñ ko lu mel ni imaamul buxaari mu dajalee téeréen bi ba pare wax ne wax ne amul benn xadis te lii moom moo ko waxal boppam ci li ñu riwaaye jëlee ci moom xaw ma ndax wéeg naam wéwut waaye Firabri moo wax ne te di ko fekk ci tarjama imaamul Buxaari ci taarixu Dimashq ak ci yeneen téere yi ko tarjamal que ne amul benn xadis bu mu dugal ci téereem bi lu dul ne jàpp na sangu sangu set julli ñaari rakk doog a bind xadis bi loolu il faut ngeen wax ñu naka la demee ba pare ak tanaaqut bi am maanaam mbëkkante bi am ci wax fan la bindee téere bi yenn xadis yi wax ne ci Màkka la bindee téere bi yenn hadis yenn wax yi wax ne ci Médine la bindee téere bi yenn wax yi wax ne ci Xuraasaan bi mu génnee Xuraasaan la bindee loolu tamit faaw ñu ko ak yeneen ak yeneen yu dul yooyu yoo xamante ne incha allah bis buñ ci tollee dinañ ko wax bu fekkee am nga looy kii mën nañu mën nga kii après ñu kii incha allah maa ngi tudd. waaw ah non li may li may dolli mooy euh, ma résumé. Hmm. ma résumé yow léegi li nga li li nga wax ni bu doon lii la duñ débat. li nga wax ni hmm. déedéet bu doon hmm. lii bu c'est li nga wax tey. Hmm. li nga wax tey bu doon lii la du ñu débat hmm. parce que ñun li bi li indi hmm. débat bi mooy ñaari mbir préciser naa la ko au départ je t'avais dit nee nañ imaam Shafi'i nee na loolu laa njëkk a wax n'est-ce pas imaam Shafi'i nee na aballaahu an yutimma illaa kitaaba donc ñu wax naa la amuñu amuñu problème ci nga nga diingat Bukhari nga def intiqaad ahadis Bukhari amuñu ci problème léegi yow leeral ñu sa objectif rek loolu la ñu wax leeral ñu sa objectif ñu xam na yow sa objectif defar moo la tax a jóg ànd ak ñoom frère Rachid finalement finalement man tamit man tamit ci ci ci débat bi j'ai atteint mon objectif mon objectif man nga man euh, ma wane woon ne ma wane nga wan ma ne yow e jam bi nga jam Buxaari jamoo ko pour def ko buntu yàq leneen mais yow bu dee fii nga yem man ak yow ñun ñëpp ñoo bokk position te gis naa ñu bëri gis naa ñu bëri di bind Mor Kébé mais yow li ngay wax nii bu dee lii kesal yaa ngi marqué du ngeen débat ca li nga wax li nga wax fii tey jii nii bu doon yow lii lii lii rek nga waxoon bu doon ki ngeen njëkk ki ma waxal man ki ma waxal ci sama ci sama vidéo bu doon lii la waxoon y a pas de débat léegi nag li indi débat bi mooy peut-être yeneen wax yi ngeen wax wala ñun li ñuy yaakaar ne moom ngeen bëgg wax te waxu leen ko mais bu dee bu dee bu dee lii kese la lii amul débat puisque lii ñun ak yéen ñoo ci bokk yem Mhm. waaw léegi nag mhm. bu fekkee lii li nga wax nii dara nekkul ci mhm. ginnaaw dara nekkul ci ginnaaw yaa a aucun problème nous sommes d'accord avec toi léegi nag bu fekkee yow lii euh, da nga ko bëgg utiliser nag pour pour ut buntu jam leneen ñun loolu rek la ñu bañ les mais yow boo d'accord ne yow lii da nga kaa def euh, intixaat pour ñun ñëpp ñu ñu ñu ñu gëstu c'est aucun problème mais bu yemee fii baax na bu paasee fii nag ñun loolu la bañ voilà. Euh, d'accord mën naa wala kii ah. mm-hmm, mm-hmm. la wax jazakallahu xayran Seydi euh, xam naa li ma bëggoon a wax bu njëkk bi mooy maanaam li nga daanelee que ne bu fekkee fii la yem amul problème waaye bu départ bu bu weesoo fii moom lañu bañ manaam même bu weesu woon fii même bu weesu woon fii mu yem fii ak mu weesu fii dafay soxla ay tontu dafay soxla tontu mbir mi du yem rek ci ne ñun ñoo bañ wala ñun ñoo nangu parce mbir mi duwul mbiru mbiru mbiru. Euh, mbiru humeur ak mbiru suñu bëgg-bëgg wala caprice wala nangam même bu wess won fi par exemple exemple ma jox la exemple tay ji suma ne la won suma ne la won nangam wérul laaj bi tontu bi du nek rek man ma bañ damay défendre tontu bi da fay laaj nga saxal ma ne nangam boobu wér 1 plus 1 égal 2 tontu bi ni nek rek ma bañ 1 plus 1 da ngay laaj nga saxal ma 1 plus 1 n'est pas égal ak égal 2 bu fekkee d'accord Quand même vous êtes sauvé. préparez-vous à des réponses scientifiques et constructives yo secrétaire